César waaw jox ma heure bi heure bi fu mu toll. heure ah, kon loolu jeex na. 6 heures 4 minutes ndeysaan. 6 heures du matin. maa la <laughs> <laughs> Libi. bët bind na caméra yi libi. cey duudu saan waaw. fàq na ko fàq na ko roof ko caxabal. roof caxabal roof libi door. libi door dan duudu saane. libi door dan duudu saane arbitre nee na dem leen. arbitre nee ku daan. lu xew lan la Libidor daan de la ma gis Libidor daan